Ismaïla Madior Fall dul dara dañ koy félicité. Ah. moo tax mais en aucun yokk ah, de. que bu yokkoon en aucun cas. Hmm. naan kenke naa. waaw xam nga <laughs> ah. xam nga dama ko a laaj ba ñuy def seen meeting bu ñu doon def fële euh, bu ñu doon jël micro bi ne ko mais monsieur le monsieur le directeur. qu'en pensez-vous sur le deuxième mandat de Macky Sall mu ne ma ah troisième mandat bi mu ne ma non non il faut ne jamais dire ça c'est deuxième quinquennat <laughs> <laughs> caaxaan rek. après dafa <laughs> rek la ko mënuma non non non mais deuxième quinquennat qui t'a c'est troisième mandat mais c'est deuxième quinquennat. a ah c'est le deuxième quinquennat. parce que ñoom amoon na njàqin ne waa mais waaw mais parce que kooku kooku gënoon jege Macky Sall amut. Mhm. kon dafa ça montre que dafa nekkoon ci boppam. léegi nag ñëw gis nga jeu politique lii lépp am tey. Mhm. Euh, enjeu politique bi am yëpp mooy léegi il faut ñu nangul na ñoom Ousmane Sonko c'est un fait politique. Mhm.

état bi daan def réaction loolu baaxul ci état pouvoir waaw maam non da ko diire depuis deux mille vingt et un la ba deux mille ba ni ñuy perte pouvoir bi mm, mm, mm. Ousmane Sonko mooy def ah, action <laughs> waaw boo seetloo moom mooy def action ñoom ñu def réaction loolu baaxul ci parti au pouvoir. Ah. parti au pouvoir warut nangu l' opposition bi di déterminer feuille de route maam politique bi. Mm-hmm. maam arène politique bi loolu mm-hmm. erreur bu mag la. Ah. te Macky Sall da ko nangul Ousmane Sonko. léegi nag ñoom lan lañ ci war a jàngee ñoom opposition bi mais waruñoo nangu tamit aussi Ousmane Sonko nekkaat parti au pouvoir di dérouler yéen ngeen di topp ci ginnaaw. soo seetloo à chaque fois su génnee def sorti ñoom ñëpp dañuy commencé dóor su noppee ñoom ñoom ñu noppi. Mm-hmm. mais waruñoo xaar muy noppi exemple benn ji waroon naa fekk lu mel ni problème mu bi. Mm-hmm. ñoom ñu nga xam ne opposition bi yëpp dajale def conférence de presse Ousmane Sonko loolu la doon réussir. Mm-hmm. soo seetloo à chaque fois su problème daa am rek dana fex boole les leaders toog def benn conférence de presse bu dal. su mm-hmm. waree def beneen plan d'action bu la waree génn def manifestation. boo xam ne pacifique lay nekk. dañ koy def. mais loolu daf ci am solo waaw ñoom waruñoo nangu Ousmane Sonko nekkaat parti au pouvoir di délourer maam euh, actualité loo tax topp gi ñu ko topp nag moo tax tey mu dugal leen ci kàmb gi opposition bi amatul benn action bu ñu mën def mm-hmm. su ma xam ne wax naan maam jaar si jun jël la tiimal leen seen doq gi maam rey leen nii nga rey leen pare te yow wóor na la wóor yàlla ne ah. peuple bi ñoo demande sociale la ñoo bëgg ñu tas assemblée nationale bi président teg leen pression yéen a ngi nii suba ngeen convoqué ñi samedi mhm. lundi ngeen war a dem euh, plénière su ngeen ko votee mu jàll ñee dee nañ ba pare mhm. yéen moom la treize yow xam yow njëkk njëkk ci kaw <laughs> waaw la treize bu <laughs> waa ji euh, jëlee leen mën na leen xaatimal mi ngi noonu kon est que foofu du am jafe-jafe selon Euh, code euh, électoral bi. nga xamante ni dafay wax ne parrainage bi il te faut minimum quatre vingt dix jours à cent quatre vingt jours. pour parrainage waaw xam nga xam bu ñu fàttee Sénégal fi ñu juge hmm. xam nga olof Ndiaye gars yi dañuy wax ne l' exception confirme la règle. Ah. <laughs> Euh, ba ba ñuy dugg ci présidentielle lan la ñu waxoon. ba Macky Sall reporté affaire bi. waaw lan la ñu non non loi bi lu mu wax mooy quatre-vingt-dix jours mënuñ fee tëgg élection yi mais conseil constitutionnel moo ñëw taxaw. Mhm. l'exception day am. loi yi ñu ko tëgg ay nit lan. Mhm. te nit yooyu ñoom ñoo koy changé. à condition nu euh, euh, arène politique bi di demee la. parce que lu ñu leen waxoon naan quatre-vingt-dix jours waruñ ko fee tëgg kon lan la war a mën nekk juin lay nekk Macky Sall ñëw tegaat beneen équation xew le deux damay pression boobu na ñu commencé koo doxal ci kaw nit ñi non su demee en vacance du pouvoir na lay nekk gars yi commencé monté Amadou Mame Diop mooy ñëw nekk président moo war a tëgg élection yi ñu dem mais conseil conseil constitutionnel. Mhm. yaa dégg tuddee waat ko beneen tur mais yooyu yëpp amul conseil constitutionnel dañoo taxaw. maam Sénégal man dama lay benn affaire ak lu métti bi da gis ay nit yu diñ maanaam diggante décembre beeg wala diggante janvier beeg fi ñuy bot voté bot naan non suñu fi taxalee fee voté waat encore tamit euh, euh, marathon bi euh, mënul nekk ak mais bu demee mu liggéey ordonnance ba bañ pare ñu ñu buñ installé pare ñoom ñu départ parce que là les députés a voté avant décembre xam nga ak là buñ dissoudre assemblée bi doo ñu am daa deex nag waaw nga xëy rek la loolu dakk na <laughs> da ngay commencé. non dafa yéeme ak aussi tamit ku la wax na ne ñoom amuñu ay bor. est-ce que lebu ci at ah, mi <laughs> loolu da pose benn affaire Macky Sall il intelligent ah. parce que xam na ne moom élection mu ñu ngi jëm ci présidentielle ah. te législative yi xam na ne moom amutoon majorité hmm. la majeure partie opposition bi dañu am moyen hmm. su dañu am privilège dañu a politique dem ana campagne lu mu def def na non non député cette fois ci duñu leen jox ay oto kon léegi opposition bi nga xam ne mosuñu am nañ ay oto te ba aussi tamit ñoom ñoo nekkoon maam ñu ay sax ay liste suppléant ñoo jàll mm-hmm. xam na ñoo ñu si am oto bëriwul léegi ñoo ñëw soo ñëwee jox ay 4-4 te boo yooyu ñu ne liste bi ñu fi nekk ñëpp Ousmane Sonko moo baatal campagne pour ñu réussir mais ñooñu bul sonn Ousmane Sonko su paree pour def campagne dañuy jël seen carte carte jox na ko foo ko mën a yóbbu ci gin gi demal alors Macky ah. que noonu adduna moo tuddee noonu lépp la dañuy def seen politique ah. mais aussi te benn affaire am na hmm. soo seetloo Ousmane Sonko dafa génn wax jour bi ñuy jëmbat garab yi mooy hmm, pont Patte d'Oie dafa benn wax bu am solo hmm. nit ñi bàyyoon ci xel daf ne daanaka ñun dañoo tëju woon di jàngat dossier yi. mu ñëwaat keroog ba muy jàkkaarloog artistes yi mu wax ko mu ne daanaka pare na. période boobu mënuñoo nekk ci dossier yi di nekkaat ci ay politique leneen. kon Ousmane Sonko dafa signalé affaire bi li xew nii da koo signalé te gars ko. léegi nag bañ demee ba stable ba pare ba mais commencé teg laa nga politique bi léegi nag jeu politique la nekk ak ñoo war a avoir seen intelligence nan lañ koy maam lijjantee ba duñ dugg ci kàmb gi bi leen bëgg gasal. Mm. mais mu ngi leen di gasal kàmb te buñ defoon naan dañ ci dugg. waaw ah absolument loolu fan la ah, parce que bu la nit gasalee kam moo pare takk say bët. na président hmm. bi lañ doon jéem protéger. te mënut a nekk te xam nga xeex baa ngi ñu wàcc kanam léegi jeu politique dëgg di am man danaa bokk ci liste nationale bi wala dama war a dem ci département bi mais dootu nekk léegi da leen créé waat beneen guerre ñoom seen biir parce que xam nga ne Abdou Mbow su demoon liste départementale Thiès ah, amul du jàll léegi nag moom nan lay xeexee pour mën a nekk ci liste nationale bi ah. Mansour Faye dana wax ne ah man tamit damaa bëgg a bokk pour ëllëg suñuy def euh, réduction des comptes ma am immunité parlementaire mais on verra rek ñu seet lan mooy xew ci kanam non dama naan léegi kii langue politique bi dafa gën a ubbeeku. Ah. waaw Ousmane Sonko ubbaat na langue mu gën a yaatu. alors euh, ñu jógee ci assemblée nationale boobu ak au conseil des collectivités territoriales mais tey dañuy tabbi. Eh, ci jàngalekat bu mag bi def na cours magistral bu doyo doy waar démb bi muy jàkkaarloog eh, militant yu APR yi wala yu benn bokk yaakaar yi eh, ba ci ab livre blanc ni Macky Sall li mu def ci ay réalisation ci Sénégal mosuñoo gis sax ab président bu def réalisation yu toll noonu ci Afrique ca nam ko présenté ndax jàpp na ne daal moom toll noonu moom Macky Sall li mu def ci réew mi lépp lépp lépp lépp gong lépp mojj amul benn rëq-rëq amul benn ñaw ñaaw ba na Euh, daal démb moom def na livre euh, bi nga xamante ni moom lañ doon présenté ñoom waa Benno Bokk Yaakaar te Sidiki Kaba doon ko présenté naka nga jàngatee livre boobu. lépp mojj de. waaw Macky li mu def ci réew mi. waaw livre bi Macky Sall nag xam nga nit doo soxor. waaw damay wax ne lu nit gëmm gëmm gëmm gëmm. Hmm. da nga gis lu Macky Sall lu mu def lu. concret waaw waaw loolu de dëgg la. xam nga lu ñu doon génération concret bu ma bu bu. Karim eh. euh, loolu mais si Macky Sall nga koy gisee. ay action concrète waaw action yu concrète. Hmm. léegi nag léegi lan ngay jàngat mooy damay wax ne gis nga Macky Sall dafa ñëw topp Abdoulaye Wade ci benn ritm mooy infrastructure. Mhm. mu taxaw ci lu bari. Sénégal ku fàttali en 2000 2001 2002 2003 ba 2004. Mhm. duggoon Dakar dafa nekk lu difficile. Mhm. Ablaye Wade ñëw xalaat ni lii dafa métti si vous rappelez très bien c' était très difficile surtout gars yi nekkoon ci banlieue bi parce que boo doon ñëw surtout pont maam boobu ñu ngi tabax ascenseur bu nekkoon pat kii bu nekkoon euh, pompier ak baaratal Malick Sy mooy pompier bi noonu c' était très difficile da ngay gis nit ko xëy war a xëy 8 heures te obligé nga jug 5 heures du matin mm-hmm. oto jaga njaay dañ doon dagg par 3 3 da ngay mm-hmm. ñëw nga jugee Géejawaay marché bees ñu ñëw bu la jëm Euh, mairie port Colobane ba mairie sax dañ ko doon dox dañ ko doon dox c'était très difficile Abdoulaye Wade ñëw teg ay projet pour ñu ñëw tabax pour mu avancer soo seetloo ci diggante boobu moo moo ko euh, Idriss Seck am problème yu xaw a sensible lu mu def mooy Macky Sall commencé ñëw Abdoulaye Wade wax na ko keroog ba mu yaayam bi di ko jaale mu nee na lépp lu ma xalaat rek daanaka Macky Sall da koy concrétiser man li ma def sama ma yu ma yu ma gën a bëgg mu fës ci Macky Sall la fësee maa ngi koy gërëm di ko sant mm-hmm. Macky Sall mais loolu da ko jël topp ko Macky Sall loolu soxor soxor da nga koy nangul benn mbir Euh, lu mel ni infrastructure yi ngay wax léegi léegi lu mel ni BRT. damay wax ne àdduna. E soo defee askan bi gis seen bopp soo ci lekkee sax garaawul. mais xam nga li bon ngay lekk yi fi askan duñ ci gis seen bopp. su amee surfacturation sax baax na parce que. am na benn mais jéggi dayo yi aussi. dafa ëpp waaw maam day ëpp mais ba am benn ouf de xam nga lépp solo ci doomu aadama. su duggee rek sentir na moom tey lii ñu def moom gis na ci boppam. ndax xolam day bi day neex na. BRT bi exemple tey. man mu doon jugee fii di dagg maam daal jël taxi di dem Dakar. Mm. dootoo ko defati téye obligé nga fay 500 génn soo génnee départ wàcc soo wàccee foofu nga fay taxi benn 1000 francs mu yóbbu la fi nga jëm ci biir Dakar. kon 1500 nga am. Mm. maam boo daan fay 4000 defaral na ko 1500. Mm. kooku da koy félicité parce que da koo def lu concret nga gis nga ñëwaat deuxième bi terre bi Dakar ni mu daa mel ñu daa jugee fële. lu mel ni dem ñaa jóg Rufisque bëri na ñoo xam ne tey du ñu luye woon fi man xam naa ci ay nit yoo xam ne du ñu luye woon fii c'était très dur ak ñoom pour ñu fay seen luyage bëgg dund day métti xam ne lañu mujj def mm. mais dañoo mujj retourné dem ay jam ñaaju dëkki foofu fu ñu dëkkee foofu noonu luye fenn foo xam ne moins cher la leneen xaalis bi desoon ci capital bi ñu jël ci ay carte mm. di jël teer bi suñu demee Dakar waa ci dem liggéey te leen dara gis nañ ci seen bopp boo seetloo Caaroy Kër Masaar ñooñu aussi bu ñuy dem Dakar gis ci seen bopp loolu dafa nekk lu concret lu koy gis ci Macky Sall deuxième bi nga dem ci pow Foundiougne bi mm-hmm. képp ku dëkk Foundiougne dañ koy félicité gis nañ vraiment lu mu réussir defal leen ko ah. nga jógee waat foofu aussi pont Gambia